di tunnum nga euh, mun nga sax nekk non inscrit après bu ñu bu ñu indee benn loi à l' assemblée nationale nga gis ni xëy na yow yow aperçu bi nga ci am dafa méngoo ak waa benn bokk yaakaar. mais nga apprécier ñoom côté bi ñu defee. bu méngoog waa yeewi nga méngoog bu méngoog waa waa waa waa yeewi nga nga nga validé. waaw c'est que itam nit ñi foog ñu bàyyi di xool di xool. nit ñi fi mu ngi bëgg ñoo leen rëdd ni nga bëgg a dundee. loolu itam mënul nekk. loolu itam mënul nekk. aja ah, ñu daan ci au yi ak Wallu ils l'ont mm-hmm. fait ki bëggoon voté pour Pape Diop def na ko pour Pape Diop ki bëgg voté pour Pape Djibril Fall def na ko Pape Djibril Fall est-ce que léegi yow mi voté pour Yewwi ak Wallu da war a imposer ne ni ki voté Pape Djibril Fall na ñëw ci man wala ki eh, waa yow mi voté Benno da nga war a imposer ni ki voté Pape Djibril Fall wala Pape wala Thierno mm-hmm. Alassane Sall da nga war a ñëw ci man moo tax mbirum gor bu ñu nee ni jaay sa ngor ñooñu ñett mënuñu leen tudd ci wàllu jaay sa ngor ku ci hmm. nekk danga am sa coalition bopp am say électeurs yu la votel maintenant nag une fois à l'assemblée yooyu yaay choisir fan ngay féete bi naan yaay yaay sa mooy nga def ralliement yow bàyyi fa nga nekkoon ñëw jël say kaak ak say dëbës ak sa lépp dem ñibbi Macky Sall waaw comme li xew Médina au conseil des collectivités ba bàyyi jàmm <laughs> ba bàyyi jàmm. <laughs> au conseil des collectivités territoriales ak euh, euh, euh, nga xam ne dañu ko rejeté Yewwi Wallu gëm sa bopp nee nañu nu au conseil bi nañ ko gas suul parce que nag amul benn njëriñ ci askan wi le mandat sax foofu la dégg dikk l' intercoalition Yewwi Wallu ak Bougane Gueye Dany maa daanaka tufli nañu ci au des collectivités territoriales bi soxlawuñu ko dañoo jàpp ne askan wi nag jot na ñu xamal président Macky Sall ne ko te lii nga taxawal amul benn njëriñ ci wi sunu koppar moo si dugg ñoo am ci ay privilège salaire yu nga xam ne xajoon na ci euh, dund gu cher gi alors nga jël di leen ko jox ndax lan ay militant lañu amoo foo leen dugal nga dugal leen fa kon nag jot nañu daal di koy di koy tas euh, foofu la yéenekaay bi euh, dikk yaa l'observateur dafa ñëw ci lu nga xam ne nii dañ koy faral di nemmeeku maanaam ku jigéen ku sëy ba noppi divorcé am doom ñu bëri dañuy jàpp ne peut-être mën na di di di fowee boppam góor ñi bokk dañuy jàpp koo xam ne divorcé nga Euh, euh, kii ngay nekk euh, nu ñu ko tuddee da nga ñëw rek jaar jàll ren di jéggi parce que l' def si benn gëstu bu yaatu mu ni gëstu bu yaatu la si def préjugé bu soxna yi nga xam ne dañuy divorcé nga am jëkkër ba noppi divorcé nee nañ dañ kaay bi dafa jàpp ne peut-être góor ñu bari dañ lay jàppee ni dañuy ñëw rek jaar sa kaw dem fowukaay voilà naan li ma waxee ren di jéggi moom moom moo <laughs> gëstu bu yaatu la si def laata ñuy jéexal sa Chine am na benn virus bu bees bu fa génn. encore eh, encore. après Covid 19 un autre virus détecté en Chine. nu mu tudd. waxuñu ko sax. di tur bi kay nan ñu si dimbali. baalu def kanamu meer bi ñu wane noonu lay def kanam. Ah, takkati masque. déedéet meer bi kanam bi. kanam bi daa màgget rek moom daa màgget rek. moom dafa ras rek dafa ah, màgget. ah yes xam naa virus bi rasloo ko. moom <laughs> xam ñu ne nu brise bi tudd nga la waaye fi ñëw nañu dimbali rek les Wade au centre du jeu fu nekk dafa mel ni kon euh, waa parti démocratique euh, sénégalais ñoo dikkaat na woon euh, jëlaat seen doole ndax nag élection seen ñetti siège nga xam ne seen ñetti siège ñuy laaj ba noppi di ko miim ah dañ ko wax ba pay weddiwaat Doudou Wade nee na maa ko wax nee ne moo waxuñu ko fi nga ko wax démb seen show. nee na nee na ko moo tax Sénégal weddi nañ ma man ko maa ko wala la ñu ci am. mu ne yow yaa joxe na ay ci ni ñuy laaj ñetti ñetti député yi. man leen bu fekkee ay député yu yeewi yu wàllu dañu leen retrouver ci biir liste bu yeewi ñu jàll nekk ay député te muy alliance bu sincère am na benn benn député yu yeewi kon yu nekk ci biir liste wàllu. Mm-hmm. kon waa wàllu dong ñu amoon ay député ci biir liste yeewi pour laaj ko muy ñetti député ñu complété léegi waaye yooyu moom amuñu pour am ay quelques députés fii da lay taxaw nee na maa ko wax Sénégal weddi nañu ma hmm. ma jël ma ma ma taggaat élément wu Lamine Thiam ba envoyé ko Mouhamed Diop ci biir journal bi ni ko tegal ko ko ci biir émission ni ko da ko ko war a tegal nag mu gis ko ñoom ñoo def point de presse wax nga xam ne ñoo ko moom ñoom génne leeral ñoom nu ñu amee ñetti député ci biir limu cinquante sept bi ñu jox waa yeew yi hmm. léegi ñu ni loolu alliance stratégique la mais bu comme noonu la demee lan moo tax waaye yi aussi amuñu benn wala ñaari député ci biir liste wàllu xanaa waawalu dong ñoo am ñetti député yu ñuy jëlaat mhm. te di ko leeral te di ko préciser waaye yow ñu am ñetti ñetti liste ñetti député yi dem ci biir liste wàllu waawalu dong am ñetti député ci biir liste yeewi ba tax aussi lim ba wàññeeku léegi nekk cinquante quelque ñoom ñu am vingt sept caaxaan baaxul waxuma ko Lamine Thiam ko ci point de presse j'assume élément baa ngi fi Aziz Sow moo fa demoon Mouhamed Diop moo présenté journal moo commenté je maintiens mes propos waaw en attendant ànd ba dëgguwul. en attendant Cheikh Alassane Sall moom mi ngi maintenir ay propos intercoalition euh, existul juridiquement. nit ñu waxee wuñ ak impulsive wax loo xam waa wax xët xët non non non dañuy wax ak fulla ak classe. boo mm. leen weddee da ngay indi lu leer. teg te itam ñu préciser waat. ñoo laaj ñetti député yeewu yeewu laaju ñetti député wasalaam continué. très bien Cheikh Assane Sall ñu ngi koy nuyu moom nee na 82e siège am lay laaj moom nag fi mu teg tànkam teg. am pour caaxaan daajal sa euh, euh, euh, bi ñu fa am Seynabou Ndiaye mooy sunu taaw foofu sa Mauritanie. ñu koy ñu koy jaale baax ak sama cousine yi Mariam Naal Fall nuyu naa leen bu baax na fa jaf bi jot dañuy jàkkaarloo ñun foofu sa attaar jaajëf El Hadj kon la ca gën a fës. icë dañ koy dooree ci liggéeykatu siyaas yi nga xamante ni fële ci diwaanu Saint-Louis dañoo mel ni dañoo feelu seen nattango yu Dakar muy entamé grève de la faim sabab bi mooy laaj ñu fay leen seen xaalis ginnaaw bi ñu sàkkalee si pexe seen entreprise bi ak euh, ay licenciement yu jaaduwul ci boobaak léegi toll na ci fanweeri at ci diwaanu Rufisque liggéeykatu municipaux yi ñoom itam euh, dañu def mobilisation ci kanamu mairie ba la ñuy exiger muy généralisation d' de salaire ndax kat fu yokkal foofu na bàyyi Mansour xel mënu koo nangu moom la ñuy yuuxu lu mooy loolu itam coalition gëm sa bopp nee na du bokk ci élection collectivité territoriale du moom dong opposition bi Yewwi Askan Wi wàllu itam wax nañu ko démb du ñu bokk ci boobu boobule boole ciy demandé sax faf ñu dal di supprimer boobule euh, institution wàllu sport dinañ ci ànd bay euh, Baye Mante Mboup yéen kaay yi Mantoulaye Thioub Ndoye faram fàcce gi ak Mame Mbaye Ndiaye. une décision motivée jaajëf Elage jaajëf waxtaan wi nag ñu daan liggéey sa ndem si yàlla siyaas foofee ca Ndar nag jàppale ne kon ñoom i soobu nañu ci xiifal gi xiifal gi la ñu sa jublu du lenn dul fanweeraat ñu toog di laaj seen koppa te ba fii France daal di xëddéen gannaaw ba ñu leen dàqee ñu ngi sàkk suñu turam président Macky Sall mu jël seen dossier boobee daal di daal di ak saafara sa mu gën a gaawee ñu teewlu sa ay kaddu yu tukkee si ka yor seen kàddu di Bilal Sall. fu nekk wax na fa fu ñu foog ne boobu ba léegi ñu courons derrière nos fonds te lii ñoo ko moom yelwaane wuñu ko te lii ñu nekkee monsieur le président yow yaa nu ko teg xoole ñii ñii dee nañu ndax stress te deux am na ñoo xam ne génne nañ leen seen location ñii ñoo ngi feebar mënuñu faju te seen lii nañu yaakaar monsieur le président dañu lay ñaal ngir yàlla ak yonente bi bu fekkee yow yàlla moo la sàkk sàkkunu jàppale nga am yërmande nga jàppale nu ñun ñii parce que sonn nañu am na ñoo xam ne sonn nañu mënatuñu dem am na ñoo xam ne sax ñoo ngi fanaan si mbedd mi qui est responsable de tout ça c' est du Sénégal ñun suñuy droit la ñuy jël. maa ngi lay ñaan monsieur le président loolu mën jàppale gars yi ngi def grève de la faim à Dakar ñun ñoo ngi leen soutenir fi à Saint-Louis dans tout le Sénégal nag am na ay ex agencias parmi les quatorze régions du pays du Sénégal ñoom ñëpp daan def grève de la fin ñoo ngi lay ñaan nga jàpp si le plus rapidement possible. kon mu ngoog ñoom ñoo mujjee duggo ci xiifal gi ndax ñaari ay bés si ginnaaw ñu daan liggéey seen dem si yàlla sotra ak sias ama Sénégal se euh, la ñu tàmbali seen upp euh, xiifal te ba fii euh, bàyyeeguñu ko lañuy sàkk mu di reliquat bi maanaam dañ leen desee seen ak ndàmpaay xayma nañu ko ci fukki milliards ak juróom-ñaar société yooyee nguur gi moo leen tasoon ñoom nag ñu ngi joxante fii ci diwaan Ndakaaru dig daje sa juma bu teet ministre bu Liberté 5 ba fii may addu ngeen teelu juróom si ñoom dañoo lott ba ñu mujj leenu évacuer âge mu mel ni kon euh, xiifal gi mu ngay bëgg yàgg si ay mag yu nga xam ne ni daanaka euh, ñu si bëri sax euh, daanaka nee nañu faatu nañu te jotuñu seen koppar ñi fi des nii nag seen bëgg-bëgg du leen lu koppar bu nga xam ne ñoo ko moom te ñaanuñu ko. waaw mooy li ma waxoon démb rek ci xibaaru guddi gi ci gàttal maam pour mu yomb ñu comprendre ko nguur gi da leen a bëggut a fay hmm. te moom mooy responsable ci lépp lu xew. ndax moo sàkkal pexe seen ay entreprise amatuñu liggéey ñu war a am indemnité joxuñu leen indemnité yi moom mi leen ko war a fay mooy responsable lépp lu xew naka assumé hmm. ah wax ji amul amul guddal bu ko bëggoon na régle régler na ko sànq ba tey yéen a ngi wax ci au conseil des collectivités territoriales yéen a ngi wax ci euh, au conseil nu mu tudd économique sociale et environnementale yéen a ngi wax ci yeneen indemnité yu ñuy jox ñeneen ñu ko méritéwul euh, kon bu bëggoon a fay ñooñu seen xaalis ñaata ça tourne autour de treize milliards treize milliards tuuf ci euh, suufu Sotrac mhm. donc euh, li ñu fi bàyyi woon ci ay biens donc nga xam ni foo fàttali ni c'est une société boo xam ni sànniwuñu lennam Sotrac dem dikk amul seen lenn lu ñuy sànni bu ci màgget dañu koy réformer waat jaay moteur jaay weñ jaay xott jaay siège jaay pneu amul lenn lu ñuy sànni lépp réforme yi xam nañu nu muy demee ci garage mécanicien yi buñ ci nekkee sax nii da koy xam est-ce que sax nekkuñu ci nii réforme yooyu itam foog ñu koy leeral Sénégalais yi bu ñu dépiécé oto bu ñëpp bokk faaw itam ñu koy ñu koy def publiquement ñëpp comme ni douane yi di def nga xam ne bu ñu def vente aux enchères dañu koy dañu koy dañu koy leeral fokk itam li ñëpp bokk ñu koy leeral mais matériel Sotrac boobu kenn xamul fan la mujj ba léegi. nañ mhm. leen fay seen xaalis moo gën. Euh, foofu est-ce nag ñu vider dossier bi une bonne fois pour toutes ndax ñaari semaine ñu nekk di xiifal ba ñeneen di ci di ci dugg mën na mujjee euh, si mara détail yi. sur le principe l'État c'est une continuité même bu fekkee c'est passif boo xam ne dañ ko hérité ci Abdoulaye Wade. jëmm ko mais nag moom diggoon na leen ne. oui ne dinañ ko éponger. dina ko éponger mais volonté bi moo amul. parce que bu fekkoon ne ne wax na. mu passé à l'acte kenn waxatu ko treize milliards tëwul état du Sénégal hmm. cinquante milliards yi ngay jël di ko réfectionner building joxoon ko ñii pour sauvegarder au moins seen dignité moo gën parce que ci ñi nga xam te ne nii ñoo nekk ci euh, euh, euh, ex-travailleurs Sotrac SIAS ainsi de suite ñii seeni i sëy tas na jabar ya toog nañ ba mënatuñu muñ dem ñii faatu nañ naqar rey na leen donc restaurer seen i dignité dafa war a nekk loo xamante ne nii état dafa war di taxaw ci loolu parce que ay passif bu fekkee même beneen nguur moo ko la la la dal yow bu ñëwee boo ñëwee la la war mooy mettre en navant li nga xam ne moom mooy préoccupation population yi. Mm-hmm. maa ngi ko doon wax sànq au moment où ñi ngi wax ne ne ñu ngi tabax benn péage boo xam te nii diggante dakaar ak Saint-Louis nar ci def cinq cent onze milliards yoo xam te ne nii dañ ko ciy def. diggante Dakar Tiwaawoon nee nañ dañ ciy dugal lu tolloog cent soixante quinze milliards nga jóge Tiwaawoon dem Saint-Louis ñu ne dañ ciy dugal trois cent quarante sept milliards lépp lépp boo ko boolee day nekk cinq cent onze milliards ñu ne léegi équipement yi nga xam ne moo jëm ci tronçon boobu noonu nga xam ne ñu ngi ko tuddee autoroute côtière ñu ngi ci war a dugal cinquante milliards ci équipe équipement kese kese yoo xam ne ci péage bi la nga ne da ciy dugal cinquante milliards tabax tali tey Mambay ci Sénégal la ëpp te am solo lépp mu ngi fi xam nga ñun la nañuy jéggaani mm. li nga xamante ne nii moom mooy goudron tey jii nii li nga xamante ne nii moom nañuy wax euh, euh, euh, lu jëm ci wàllum couche terite nañ koy defee beneen fii ne gadd beneen couche bu ci teguwaat mu di couche fondation noonu nañ koy tuddee mm-hmm. ciment moom moo ci tegu ñaata cimenterie nañ fi am xeex nañ fi ay sénégalais war a am quatrième licence pour cimenterie jox ko ay marocain beneen bi ci topp mooy revêtement revêtement lan moo koy waral basalte moom nañ koy defaree basalte mi ngi fii goudron kese nañuy jéggaan est-ce que xam nga kilométrage bi nga xam te nii benn boo xam te nii mi ngi jëm ci autoroute boobu noonu mi ngi ñuy coûter daanaka deux milliards ak lu teg mm-hmm. autoroute kilométrage bu ne mu coûté ñu deux milliards et francs mais ñun fan nañ dem ak nguur gi da nga mais xanaa ñu ñuy jiita ñoom <laughs> ñoo am yeneen national de ay éthiopien nañ wala ay équateur guinéen wala non mais parce que doo comprendre da nga naan ñii yan askan la ñuy jiite doy na waar ñu waxtaanee kon ñeneen ci ay liggéeykat ñu nekk sa mairie bu Tëngéej yëkkati nañ seen kàddu delloowaat buum sa mbooy mbooy ga mobilisation la ñu woote démb fësal seen ak ñaxtu la ñu bëgg moo di augmentation salaire yi ñu nemmeeku ci fonctionnaire yi te nguur gi jël ko xaatim ko nee na yegg si ñoom euh, nee na nag bu yeggul si ñoom daañ leen dégg si geneen ko façon dàq ñu amal ay grève euh, si yeneen façon ñu teewlu sa euh, ji Njaay moo yor seen kàddu di naqarlu li président Macky Sall def mooy yokkal travailleur Sénégal yëpp bàyyi agent municipal yi loolu day wan ni kon ñun agent municipal yi duñu dara kenn am kenn mariage dara nañ tëj yëpp lay dese sax duñ ko nangu léegi nag li ñuy laaj mooy augmentation bi Macky Sall def hmm. pour travailleurs du Sénégal yëpp naka defal naka defal agent municipaux yi hmm. tey nag mooy suñu deuxième sortie hmm. bu ñettee nag Sénégal dinañ dégg leneen lu dul lii parce que ñun tamit dund bi dafa métti si ñun. ñun ñoo ko gën a yeyoo. mbaam gàtt na waaye si jur gi la. ñun ñoo gën a yeyoo yokk yokk salaire. parce que agent si municipal bu si dëndee ceeb ak déwlin doo am loo fayee ndox doo am loo fayee courant doo am loo fayee location. président Macky Sall. Ah. ba muy ba muy def augmentation cinquante mille yi di ko yóbbu cent mille franc kenn xaarul décret te ba ñu yokk ah, ba ñuy yokk cent mille yu avance tabaski yi ñu décret mm-hmm. dañu ñëw rek yokk ko voilà euh, ñii nag dañ ne faw ñu euh, yokk gi yegg si ñoom yokkum salaire gi mais euh, pour man le combat du sax mbirum yokkum salaire kese mm-hmm. mais xoolaat seen statut mm-hmm. nañu revaloriser statut travailleurs municipaux mambay am na tey bu ñu ko xoolee ci secteur santé mm-hmm. ñoo xamee ni ñu ngi liggéey ci lu ñu waaye ay hôpitaux ñoo xamee ni mairie yi ñoo koy ñoo koy moom mais ñoo ñooñu di nga ci gis yoo xam ne seen salaire bu mëtee cinquante mille ci lay yem te fa la ñuy nekk gudd euh, guddeeg bëccëg. seen temps bi yëpp fa est-ce que duñu revoir seen statut ci boppam ba nga xamee ni ni ñuy jëlee fonctionnaire wu état ñoom tamit dañ leen di mën a euh, revaloriser non seulement bu ñu revaloriser seen statut mais day yokk seen salaire mais bu ñu yemee ci agent municipaux agent municipaux te amul lu ñu lu ñu mën a suturloo di maanaam ci wàllu salaire. bu ñu xoolaatee seen statut mais salaire boobu dina mën a dina ci mën a topp mais bu ñu yem ci cas salaire c'est un droit nañ la ni Euh, fu nit taxawee xëccoo lenn ñoom it ñu mën fa taxaw xëccoo parce que c'est un statut may na parce que combat la bu nga xam ne waa FGTS yàgg nañu ko porter mais Sidi Ndiaye a toujours porté ce ce mm-hmm. combat là mm-hmm. nañu xoolaat statut agent municipaux yi mm-hmm. nañ ko xoolaat ñoo taane au conseil des nag coow li ci a sóobu ci élection yi ngir renouveler ko waaye nag buñ sukkandikoo ci secrétaire exécutif bu ONG 3D nee nañu nag euh, njëriñal institution boobee daal war res nañu ko xoolaat ndax nag dafa mel ni li askan wi euh, yittewoo dëgg euh, maanaam jafe-jafe ñuy dund euh, njëkk yu cher yi ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw koppar ba ñuy dugal ci euh, au conseil bi warees nañu ko jox askan wi loolee ay kàddu lay tukkee ci Moundiaye Cissé ñu teewlu ko dañoo jàpp ne au conseil des collectivités territoriales en 2016 biñ koy samp opposition bi comme société civile dañu jàppoon ne du institution bu indil yokkute suñu démocratie donc dañ ci opposé woon benn jàppoon ne également alal la bu ñuy sànni bu xam ne xaj na feneen donc yooyu yëpp a tax ñu jàpp ne tey muy opposition bi muy société civile war nañu demande ñu def bilan évaluer au conseil boobu lan la ñu apporter loolu pour ñu def ko mooy ñu reporter élection au conseil yi waxtaanee ndax dañ koy garder wala duñ ko garder ndax li ëpp ci Sénégal yi jàpp nañ ne institution la boo xam ne jaruñu leen dara ñaareel bi mooy alal ji ñu fay def war na mën a bokk ci liy faj problème inondation yi problème mu xëy ndaw yi buñ ko defee foofu la ëppal njariñ Sénégal yi beneen bi mooy ñu ngi jóge ci élection mu indi woon ay coow yu métti duggaat ci ay élection ci institution yoo xam ne gisuñu njariñam ñun jàpp nañ ne amul njariñ fu mu dañu war a donc au conseil bi amul benn jariñ noonee la gëm sa bopp gisee coalition ba dañoo jàpp ni ñoom bokkuñu ci élection yi te yóbbanteewuñu euh, te nag képp ku leen digal